waaw xanaa di euh, nuyu bu baax waa Thiès di leen sant di leen gërëm di profité si occasion bi leen baalu ak di leen baal di ñaan lépp lu ñu woor si koor gi ñu jóge di koor bu am xéewal donc euh, yàlla defal ñu ko yàlla defal ñu jàmm defal ñu defal ñu sutura mais li ñu gën a jàppatee si xutba imaam mooy woote bi nga xamante ni woote na ko jàmm ak salaam ndax euh, Sénégal dafa mës a nekk euh, réewu jàmm réewu sutura réewu teraanga mais euh, également réewu partage ak solidarité donc je pense que imam bi ak seen bu baax si dimbalante parce que dimbalante mooy tax ku nekk mën a am si loo jàpp parce que ku ñu fii ku fi réussir amul su mais ku ñu jàppale dooleel ko moo am et je pense que loolu dafa am solo wala ñu boole xol yi nekk benn euh, di yëkkatundoo di dóorandoo pour Sénégal boo xamante ni réew jàmm lay doon parce que si jàmm la ñuy mën a construire le pays si jàmm li ñuy mën a amee développement pour que suñu Sénégal mën a nekk euh, si jàmm. ñun journaliste jot nañu suñu nar ci ci nag bi waaye yéen politiciens nee na yéen a daal seen seen langue gi bari na coow loolu la lan nga ciy wax. waaw ma loolu la ñuy euh, gis fépp parce que jàpp naa ni ñun ak acteurs politiques yi euh, suñu premier message bi ñu war a lancé mooy ñu woote jàmm parce que réew kenn mënu ko construire si ay xuloo ay ŋaayoo ak euh, fitna réew dañ ko war a construire ci jàmm parce que tey dëkk yi ñu wër yëpp xam nañ ni tey am na ay jafe-jafe pour defar seen dëkk te jafe yooyu li li ko waral mooy ñi nga xamante ni ñoo jiitu ñoo wootewul jàmm donc je pense que ni tey ñun responsabilité bi ñu am mooy woote construire le Sénégal ci jàmm ak sa salaam parce que tey son excellence le président Macky Sall bi nga xamante ni tey moom la yàlla def mu jiitu mu ngi ngi woote jàmm opposition nag mën nga défendre say idées défendre say wo idéologie te doo woote xeex doo woote taal donc di leen di gën a woo à l'appel à la responsabilité ñu xam ni réew mi c'est des débats guider mais c'est pas la force c'est pas à l'insurrection donc daal di gën a ñaaxaat surtout ndaw ñi ñu war a xam ni réew mi ñoom ñooy avenir ëllëg réew nag boo bëggee yow nga am xëy am loo xamante ni da koy jàpp da nga woote jàmm parce que si jàmm nga la ñëpp xaj donc maa ngi woo tous les responsables et leaders politiques l'union des kër xam Sénégal benn bopp la mm. kenn mënu ko xar ñaar ci jàmm la ñëpp ñëpp xaj Euh, yow ban jàngat nga si am. waaw mais comme euh, ñëpp rek jàpp naa ni citoyen bu nekk am nga droit ne candidat la. donc it moom c'est un chef de parti am na droit ne candidat la. parti mais ñun ñi bokk la coalition benn bokk yaakaar ku xam le le président Ablaye Dièye xam ni moo njëkk a lancé. une pétition boo xamante ni dafa demander à la population pour ñu accepter la candidature du président Macky Sall donc man sama candidat. au niveau de la coalition benn bokk yaar c'est c'est le président de la République son excellence le président Macky Sall te sur le plan national international ñu ngi koy wax di koy jëfee pour ku ñu imposer ko pour mu nekk suñu candidat donc donc nag jàpp naa ni tey ku ku nekk am nga droit ne de candidat daal la ku nekk rek nañ ko nangu loolu. inscription ci liste électorale yi xale yi mbaa jot nañu bind. waaw bi bi bi moom ku xam euh, le mouvement Siggi jot nga xam ko ni moom dafa mës a euh, organiser wu. Mm. pour que accompagner ses euh, militants et ses sympathisants pour ñu dem di inscrire wu si liste teg nañ benn équipe choc boo xamante ni bés bu si nekk dinañ dem xool responsable yi fi nekk jël seen militants yi. yóbbu leen encadré leen pour dem inscrire parce que je pense que ni euh, citoyen bu nekk da nga am droit dem inscrire ci liste électorale yi bés bu vote jotee nga dem voter ji Merci. Et euh, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes voeux et les meilleurs à toute la population sénégalaise, particulièrement euh, la population des Thiès. Aujourd'hui, euh, c'est un jour béni, et le jour euh, de la Donc on vient de terminer prière. je pense que ce qu'on a beaucoup plus retenu par rapport au sermon de, de, c'est l'appel à la paix, l'appel à la stabilité de notre pays. je pense que euh, euh, euh, le Sénégal a été toujours un havre de paix, donc a été toujours un pays de teranga et de solidarité. Donc cela même a fait partie de l'appel à l'imam pour que notre pays soit un pays de solidarité et d'entraide. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons tous la responsabilité d'accompagner les couches euh, les plus vulnérables pour que le Sénégal puisse e-, puisse être un pays euh, à à marge vers, le développement comme euh, vous le savez son excellence le président de de la République Macky Sall a décrété cette année comme année sociale donc c'est pour cela Nous, en tant que responsables et acteurs de développement, nous n'avons ménagé aucun effort durant tout le mois de Ramadan pour accompagner les couches les plus vulnérables par euh, une distribution de denrées euh, euh, alimentaires, mais également le ndogu de tous les jours euh, par, pour, pour accompagner et pour accompagner les populations de Thiès. Beaucoup de tensions dans la scène politique. Aujourd'hui, quel appel faites-vous à l'endroit de ces hommes politiques Oui, comme l'a dit l'imam lors de son sermon, nous les politiques, on ne doit pas prendre en otage euh, la population. C'est notre responsabilité euh, euh de participer au, développement de ce pays. Et pour construire, euh, il faut d'abord appeler à la paix. Donc je pense que nous, responsables politiques, notre premier, notre premier message, c'est l'appel à la, stabilité et à, la paix. Moi, pense que Euh, je suis dans cette dynamique de toujours euh, faire euh, la politique autrement. Mhm. Donc de, ne pas appeler à l'insurrection parce qu'on est dans un pays qui est en train de se construire. Donc ne pas construire un pays sans la paix, sans la stabilité. dernière question, les, révisions exceptionnelles ont démarré depuis le 6. où en êtes-vous Est-ce que vos équipes sont sur le terrain Oui, comme vous le savez, le mouvement Sigui Jotna est un mouvement bien organisé. chaque fois qu'on commence les inscriptions des listes électorales, une euh, est en place pour accompagner euh, nos militants et sympathisants à aller s'inscrire confortablement au, niveau euh, des zones des zones d'inscription. Donc je pense qu'on est dans ce, dans ce ce processus. Et, et, et, et nous, nous, comptons vraiment à, à, à enrôler surtout euh, beaucoup de, de primo votants qui ont adhéré à ma vision pour euh, accompagner la vision de son, de, de son excellence, le président Macky Sall, qui est mon leader politique.